ñii xam ne doom sa doom la nga jëmale ci moom xamul lenn lu bon lu mu la war a wax wala lu mu la war a xoolee as góor nag bu kontaanee cant bu mag rek da war a cant cant na lii ndax moom tey ñi war a cant daa bari te ñooñu yow ñoo ma ko sekk muy dama say nii nga xam ne mooy yaay xale moo ko jur man moom ñaari doom. mais dafa amul fii. nee ko foofu mu ne la am noonu si biir réseau rek nee ko mu taxaw foofu mais bu mu wàcc na ma taxaw mu fekk foofu mu ñu ànd ak dégg kon pour ma ne ñu bëgg rek ngeen toog ñu yeggale wax ji ndax buñ jugee ci Mor Mané bu ñu jugee ci Mor Mané dañuy def ci Daba Seye sant wax ne nu mu tee xale yi moom tamit rafet na wax day am seede dañoo jóge ci Mor Mané bii nga xam ne nii moo la yor luñ dox ci lu baax rek moo ko def mu yor loo yor bu rafet yéen a juñ amoon ci yow ak luñ na ko kon xam nga ne Roon Sam muy jóge dafa ànd ay bokkam ñëw fii ci sa kàr ba mu ñëwee am fi ay xarit am fi ay soppe am fi ay bokk.

ay boppam la nduru yàlla kattan leen barke leen kon dama bëgg a déglu lépp ñu sëb sëb loolu samba ay boppam la nduru yàlla moo daa ñëw bokk ak moom ñu bokk ak buri baay bi bokk ak moom nga gën ma ko xam kon bu ñëwee fii nga xëy sa xew si war naa sant ci turu bokk yëpp waaye loolu nee na mi ngi sant euh, seen papa moom la bàyyi xel ñoo xam ne vraiment c'est des stars planétaires plaide beaucoup de résidents dans leur projet yàlla yàlla barke lépp vraiment ci barke seen am sel kontaan nañ trop quoi ah waaye ñun bu dee lu baax dañ koy gërëm ba ñëpp dégg ko kon loolu sax di nga lay sant di la gërëm jox na yow yàlla yàlla dugal fan bi te wéral la waaye di sant bokkam yi nga xam ne nii bu ñu tuddee maam Seex Mbaw day yóbbaale lépp li ko def mooy waxi mbooloo jafe na du xarit bi nga dugg du muy frère waaye du ñu xam ñëpp parce que loolu sàmm dafa yaatu ginnaaw Moussa Mbaye bu ñu woon fii jëlee ko Dakar i ko fii def ci moom dindi ci moom ne ko kaa ñu dem nga mu ñëwee wuti ji même fi jëlewul ay ay góor la yoo xam ne ñoo ëpp ay milliards dëkkoon na ne toog yaa ngi noonu toog moo tax bi yéen a ko ngénte woon moo tax mu bàyyee la ko bëggu ci dara na xam ne bu kaw la loo ca waroon def ci lu baax di nga ko ci def te moom dara du ci dugg nee yow mi nga xam ne yow la si dal jaboot gi mi ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fan wi te wéyal la te ñaanal la yàlla yàlla yàlla defal la jàmm defal la tawfiq waaye loolu sant na ñëpp nee na sant nag yaa ngi dama sëy nag yaa ngi dama sëy gis na ni mu ko jàppalee jàppale na ko jàppale biir jàppale ko jàppale biir ren def ci moom jikko ji mu yor te ku gis soxna si xam ne soxna su baax mi ngi ñaan yàlla yàlla guddal fanam nee moom am na ni ngeen ko téye loolu sàmm am na ni ngeen ko téye am na ni ngeen ko jàppale mais ku ñu sant nag bokk ñu bokkal ñëpp ñi nga xam ne ñoom la bokkal laal jàmm ñëpp bu ci tuddee Coly Mbaye day matal sëkk nag Coly Mbaye moo jur moo jur te moom mooy sar kon nee na mi ngi leen di